Mamadou jëf bon jonn mi ne wëng waa këram yi mi ngi ne fàng ci yéene kaay ñu xëy ndol yëral xët mu njëkk l'observateur la mu fa bind mooy premier ministre Sénégal ba woon di Mahammed Boun Abdallah Dionne nee na engagé na je m'engage sa gosa sampanam dëndam fas yéene doon candidat ngir bokk ci élection présidentielle yu 2024 yi Sud Quotidien nañu bun jonn dëkk na waa Benno ginnaaw Mame Boye ak Aly Ngouille Ndiaye keneen a ngi ko dëggal ci xët mu topp ci ginnaaw dina kay gis ne moom Mahammed Boun Abdallah Dionne fippu gi mu fippu yoonu boppam berlango boppam fippu gi bett nañu bari journal bi gis na it ne Dionne amul appareil politique waaye terewul mu fas yéene demal boppam li mu bëgg nee na mooy taxaw taxawaayu candidat progrès ak candidat développement ci xët moom premier ministre Sénégal ba woon di Mahammed ma nga fay wax ne parcours personnel am ci wetu président Macky Sall mooy li ko may ci lu jaadu mu wéyal xeex bi point actu ne ñu Mahammed Boun Abdallah Dionne jël na indépendance am ci Macky Sall le témoin di laaj ndax moom Mahammed Boun Abdallah Dionne li mu def déggowu ko ak Macky ndax ko xam Boun Abdoulaye Dione ak ni mu gëmee Macky Sall ak ni mu déggalee Macky Sall bu xëyee xëy ne du jàppale candidat bi président Macky Sall tànn li ñu bari di jàpp muy réeréwu ci ak Macky Sall journal lay fa ne ko waxati ko candidat bu Mahammed Boun Abdallah Dionne bi mënees na koo jàppee double bouton bu Macky Sall Walf Quotidien ñu Benno Bokk Yaakaar tas na jamono ji tasar ba fa new ngàll féete fa yéenekaay bi gis na it ne candidature bu Mahammed Boun Abdallah Dionne bi candidature la bu mën a jural Amadou Ba ay ñol-ñol ñoxor day yomba ñoqali Amadou Ba ñu def candidat Benno Bokk Yaakaar Macky Sall ko ko def L'Observateur ne nañu mi ngi koy waxal ak ak yu baax ci waxtaan yu mu séqoon ak i journaliste yu nekk ca RFI ak ca France 24 fa la waxee moom Macky ne Amadou Ba mi ngi ak atu yëpp ngir gagné élection yi mu ne bu weesoo doole boppam mi ngi ak doole majorité bi ko jiital mi ngi ak njàppale président muy man moom mi ko wax di président Macky Sall mi ngi ci xët mu njëkk li quotidien li mu ne Amadou Ba mi ngi atu yëpp ngir gagné élection yi loolee la journal bi xëy bind ci xëtamu njëkk bi le jour moom xëy bind ci njëkk ne Macky Sall def na élection yi journal bi dellu si ak ñun ci li président Macky Sall wax démb ci candidat Benno Bokk Yaakaar li mu wax ci parti Ousmane ko bi ñu tas muy Pastef journal L'As xëy ci jaaraat moom it indil ñu explication yi Macky Sall joxe ci sens yi Amadou Ba am ngir gagné élection yi fippu gam ci biir partem bi di APR ak tëj gi ñu tëj Ousmane Sonko gaz bi explosé woon ca jëppal dexkale libération nee nañu am na keneen ku ca ñàkkaat bakkanam muy juróom-ñaareel doomu aadama yu ñàkk seen bakkan ci jéyee ji am ca dexkale ki ci mujjee ñàkk bakkanam sur soa mi ngi ñu wax kan la Roqaya Sarr la tudd amoon fukkeet ak juróom-ñeent magam di Aïssatou Tine moo doon liggéey ca kër gi gaz bi explosé woon te mujj ca ñàkk bakkanam moom it ci magam ju jigéen ji ci la ñëwoon vacances ja fekk ko fa li jur jëye di bu kalaate bi source mi ngi ñuy xamal fa enquête ba toll enquête beneen bu ñu beneen yéen kay wax fa mu toll mooy lu jëm ci xale bu jigéen bu ñeenti at bi laboon ci piscine bu hôtel Radisson ba far faatu libération nee nañu am na ñaari agent yuy liggéeye ci hôtel Radisson yu ñu garde à vue muy M6 ak see jaw ñooy ñi ñu dénkoon surveillance bu pisin bi libération mi ngi ñuy waxit ne yàlla baax ne kon ñaari xale ñoo naroon lab ci piscine ba ndax amoon na fa beneen xale bu toll ci juróomi bu doon lab waaye bàyyee moo mujj futtiku soobu ci pisin bi sowee ko